aleykum wa rahmatullahi taala wa yi mbokki taalibe yi boo leen gisee lii rek xam ni ñëwaat nañu fii ci ëttu nasru minallahi waaye nag teew si fii ci fi nga xamante ne nii rek fi la ndongo yi nekk muy daara ji nga xamante ne nii mooy daara sëriñ Assane Kane bu Nasru euh, ci heure ndogu ndogu jot ñu war a ñëw fii seete xale yi si seen nekkaay ak seen ndogu ni ñuy fas yéene ndogu tey ak ni leen sët bi berndeele ak ni nga xamante ne nii rek noonu la leen taxawoo ci taxawaay bu mucc ay bu rafet boo xamante ne nii kenn ku ci nekk rek di nga mën a gis sa bopp ci li nga xamante ne nii mooy koor gi ak ndogu bi ñu ànd ceeg sunu baay sunu xarit di kenn ci sëñ bi muy sëñ jibi sëñ bi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu. noo ngi santaat yàlla bu baax ci weer wu màgg wu tedd wii ak bisam yu màgg yu tedd yii ak waxtu wii nga xamante nii kii la yàlla dogal ñuy dog tamuy waxtu ijaaba sëriñ bi xam ngeen ne fii ngeen ñëw tur woowu mu ko tudde rek moo waral li ngeen fi gis lépp ndax ndimbalul yàlla sëñ Touba dafa wax ne wal yow ma bii laahu yuhin man saa ahu wa fi xaddin tey ak ëllëg gënu jëm ku yàlla nar dimbali ki man la lay dimbalee te da ngay dem ca matlabu sifaay mu ne wajal saqiir naa yu waqiru kabir waaye wajal kabir naa yu xiinu li saqiir na ndaw ñi wek mag ñi waaye mag ñi nañuy dimbali kon nasrullaay gi mu tuddee dëkkam bii moo lay xamal ne moom mission bi Serigne Touba tax ñun ñëpp mu tànn nu boole nag boppam ngir ñu liggéeyal ko liggéey boobee moom taxawaayam ci bi mu ci am jàpp naa ne kuy borom dimbal xam nga ko sëriñ Saliou laa nangoo ci làmmiñam mu ne ak ndimbalul yàlla dara jafewut kon ndimbalul yàlla rek moo am solo ginnaaw tawféex gi lu Serigne Touba defal ndimbal ak tawféex rek a fi ne moom nag borom tawféex la waaye mu ngi dimbalee ki tawféex ji ko Serigne Touba tawféexal ndimbal loolu nag. moo waral lii ngay gis lépp ndax alxuraan jii kat responsabilité bi ki yàlla jox rasulullahi sallallahu taala sallam ñun jullit yëpp la ko jox ñun jullit yëpp la ko jox kon responsabilité bi mu jël ci taxawu alxuraan jàpp naa ne képp kuy borom dimbal da ca xam moom itam cër bi ko yàlla cëral ci boppam ndax yàlla day wax ne bu ngeen bëggee xam wàccuwaay bi ngeen am ci man xool leen wàccuwaay bi ma am ci yéen rek kenn ku xool wàccuwaay bi yàlla am ci yow da nga xam wàccuwaay bi nga am ci yàlla si nga san koo doon jàngale boo ñëwee xool néegub yàlla bii mu fa def ci juróom-ñaari weer mu tabax ko ba mel nii ak mbaar mii te wootewul ay ndimbal ñaanu kenn dara danga xam ne lislaam ak Sëriñ Tuubaa jaral na ko loolu jaral gi mu ko jaral te kenn ku ne kem lim la jaral rek la Sëriñ Tuubaa seen ndax moom kenn mënu koo defar dara Sëriñ Tuubaa def ne sama lépp defaroon na defar gu weesu yàqu ba kenn mënu maa defar dara kenn mënu maa yàqal dara des may jéem a defaral ba defaroo ci des may jéem a yàqalit ba yàqoo ci defaral Serigne Touba moo ko may xéewal yii ni ki loxoom nangu koy ñàkkaat ci mbindéef bi moo ko yombal ci moom nii ndax sëñ bi def ne ku ma defal loo man ma defal loo mënut waaye ku ma defal loo mënut ma defal la jomb moom li mu man lépp jox na ko Serigne bi jënd ko la ko sëñ Touba mënal waaye ku ñëw fii da xam ne lii fi xew ku du Serigne mënu ko ku du yàlla mënu ko jox ndogu mbooloo mu toll nii kenn ndogu qualité bi mu koy def qualité ndogu li ngay dogu fii mënoo dem sa kër ba lekk fa ko dàq te loolu muy ñam wu yaatu woo xamante nii ci mbooloo mu tol nii loolu moo lay xamal ne bis bi ak weer wi ñor na ko lool Sëriñ Tuubaa nag danoo amul ku moom te weer wi weerama te ñu liggéey ko képp moon war ci weeram woowu moo taxoon ba muy ci taru mu woo Cheikh Ibrahima ne ko damay bëgg am gan Cheikh Ibrahima ki déggam Sëriñ Tuubaa la xam ne weeru koor wi la ko Sëriñ Tuubaa wax bëgg nga waajal ay teraanga mooy ndogu yi muy togg moom Sëriñ Asan da cee boole di di togg ndogu te loolu mooy muxtaar ma taalibe maam Cheikh Ibra ga ak diine sëñ Mbàkke Bousso ja Pastef boobu la yor boo xool diine gi danga nga naan diine rek la gëm waaye boo xoolee taalibe gi da nga naan xanaa ak taalibe rek la sëñ Asan gëm buy wax ki sëñ Tuubaa ak ni nga bëggee sëñ Tuubaa da nga naan te man day wóor na ma ne képp ku ñëw fii di fi wut sëriñ Tuubaa moom sooyoo loolu dama ko yóbbante mbooleem ku ko yaakaar ak ku koy dégg man mii dama am soxna sox sama nijaay ko jur bëggoon ma ko jox ay coob am ca te sëriñ Saali wooyu sama sëriñ may yëgaloon ko ko ba mu demee ba coow loolee yàq pas-pas sama nijaay fekk jën na guro gi ba samay xarit dem fan may maye ma xëy sëñ Saali di ma laaj ndax sa mbir moomee nga ma doon wax xam na lépp xam ga ma nettali ko la ci xaw Serigne Saliou ma ne ko mbokk yi day degeloo na ne ku sant Mbeng du ma ko ku sant Guèye du ko may xale bi Guèye la sant papaam ak sama yaay bokk ndeeg waaye sama yaay sant Guèye sama papa sant Mbeng yaayam sant Mbeng ñu degeloo réunion ne ku sant Mbeng du la ko may sant Guèye ko may bi ma daanelee yooyu Serigne Saliou moo ma ne Serigne Touba dana la ko may te kookee Serigne Assane mi moo ma ko may bis bu set nag ma di ko wax sax waaye dégg gi ci nit ñi war a dégg Serigne Touba muy def lu mu war a def foofa xaw ma fu nit di war a yaakaar da ci am xel ñaar Serigne <laughs> Saliou woo ma ne Serigne Touba dana la ko may te moom mi moo ma ko may. waaw sëñ bi bala ñuy guddal rek ñu dem ci ki nga xamante ni mooy sang bi di Serigne Assane dafa mel ni. Uh-huh. bu weeru keeru jotee. Uh-huh. maanaam même liggéeyam da koy dagg. Uh-huh. dootul génn fenn. waaye day taxawoo li nga xamante ne nii rek mooy euh, fulku bi nga xamante ne nii moom lay def chaque jour fii ci Nasru na laay boole koog naafile yi nga xamante ne nii presque dinañ wàcc kaamil ci guddi gi bala ñoo tëdd boole koog waxtaan yi muy def loolu loolu mën loolu. mooy loolu xam nga mbir ku la ko gën a bëgg rek. ku la gën a bëgg mbir moo la ëpp lu mu koy tudd lu mu koy waxtaane ku la gën a bëgg mbir mu mën a doon moo la ëpp lu mu koy waxtaane boo gisee pas-pas boobu muy naafila xam ne kaamil alxuraan yuy naafila ci weeru koor fii ci daaram ci kooku ku yàlla ñur yàkkamti ne ci yow wala yi àdduna ñor la mënoo ko fulku bii ñuy jàng fii itam xasida goo xam ne fu ko Serigne Touba dogal nu ko fay jàng sëriñ tubaa fa ne moo tax ñu mën ko fee def di ko fi jànge ndax da ko fonkoon ba fonko daan dugal bu nit ma saa am soxla sax danaa ko néeg bi de ful koo fi ne mën ngaa toog ci buntu bi ñaan say soxla kon bu ñu demee ba teg ko fii ci biir mbaar mii di ko jàng ñëpp di ko bokk di déglu di ci jariñu loolu mooy xasiday Serigne Touba ni mu toll ci moom te gis nga prix mi mu ciy def itam ak waxtaan yi te Serigne Touba nangoon naa ci kàddoom mu ne laaj na yàlla ne ko sama gaa yii de dañ laa dañ maa bëgg ba nen la war a fonke sax daa des ma bëggoon nga wax ma loo gën a bëgg ma sant leen ko ñu la koy defal nee na wax naa ko yàlla ñetti yoon benn bu ki damay dem ba mu fàttee ba mel ni yàlla déggu ma ba muy ñetteel ba yoon neen ki dama yàlla doog a tontu ne ma xanaa ñu di la waxtaane yow Serigne Touba waaw kon waxtaan bii muy waxtaane Serigne Touba te si nga san li tax mu yéeme mooy loolu lii Serigne Mbacké Bousso Dia ak taalibe maam Cheikh Rafal ga parce que yooyu képp ku am taxawaay yooyu daa mat di ñaanal loolu nag xarmu mooy koo xamante ni sariyaam ak xixam benn du ci wat moroomam boo gisee bëgg Sëñ Tuubaa gi naan Sëñ Tuubaa rek la bëgg. bu yox fii ngay dégg. da nga naan moom bëggul Sëñ Tuubaa waaye bu weesoo loolu di wax ci lislaam bu yaatu bi ñëpp bokkit da nga naan xanaa Sëñ Asan de moom ak taalibeem sax xanaa ndax. loolu mooy murit saadix bi Sëriñ Tuubaa gën a gërëm. mooy ku yor ñaari tànk di ko doxee ci yoon yor ñaari bët di ko xoole mooy koo xam ne daa boole sariya ak àqeeqa Sëñ Tuubaa nee na kooka du gis lu ko naqari ci àdduna lu ko gis àllaaxira gën a waaye ñi jël àllaaxira képp bàyyi àdduna ji di ko liggéey te jaamuwuñu yàlla Sëñ Tuubaa nee war lu ma leen ci àdduna mbaar mu leen di keral la waxoon yërmandeem ak ku mbaa xam nag moo may Cheikh Ibrahima am lépp waaye dana ko war lu ma la mu lay keral ndax alal ma yor Sëñ Tuubaa jaamu yàlla doo nga tax yàlla jox nu dund gi ñuy dundal kon man na nga jàpp ne kon fii ba àllaaxira bu fi bëgg dara kon dafa bëggoon kuy jaamu yàlla ak di ko liggéeyal Cheikh nag moom daa bëggul dara ci àdduna ñi mu yor noonu leen def waaye Cheikh Assane dafa boole bëgg àdduna ak alaaxira te jiital alaaxira ci àdduna loolu mooy xam-xam yi nga xamante ni képp ku ànd ak moom it war koo sant yàlla bu baax baax. ba pare muy liggéeyal yàlla ak Serigne Touba ñëw ci ki nga xamante ne nii rek mooy Mame Mbaye Diouf buñ nee Mame Mbaye ñëpp xam ko ci kër sëñ bi waaye ñëpp xam ko ci gannaaw sëriñ Assane Kane mi nga xamante ne nii mooy wasila mooy jëwrinam mooy sangam mooy sëriñam waaye nag doon koo xamante ne nii ku yàlla may la macha allah alhamdulilah muy kenn ci sëñ bi gis ngeen li ko doomu aadama yi di rangee suba ngoon gu dégg bëccëg muy faj aajooy jaam yi waaye nag di daw ci gannaaw sëriñam di sëriñ Assane borom nasru yàlla na fi yàgg loolu te wér te bu mbaaleen jotee wala koor jotee mu bàyyi léppam bàyyi taxaw ci gannaaw sëriñam waaye taxaw ci mbooloo mi nga xamante ne ni ñoo ànd ak sëriñ Assane Kane di leen berndeel di leen taxaw lépp lu ñuy soxla mu nekk ca subaak ni ngeen ko gisee nii moo yore taalibe yi di berndeel di leen jox seen ndogu seen dara du manqué macha allah maam asalaamaaleykum wa rahmatullah. maaleykum salaam As ñu ngi lay nuyu di leen ziar yéen média yëpp ñu ngi leen di nuyu ak auditeurs yi ak auditrices yi téléspectateurs yi ak téléspectatrices yëpp ñu ngi leen di nuyu. di ziarah, ziyara di len ñaanal koor jam di jital ci nuyo bi Serigne Assane di ñaanal Serigne Assane mu yag fi lol te ànd ak wér Serigne Assane Kane fi yag lol te ak di yeesal sunu njebal ci Serigne Assane Kane wax ne ko jebal nan ko sunu bop aduna ak alaaxira lu digal ñu def ko te yalla bu mu ñu gis ci lu mu ñuy téré as li nga wax deug la waye li sunu bay bi wax rek Serigne Assane da nek ko xamne daf no wo ba mu ñew ba ñu ñew ci koor gi mu ne nan jaamu yàlla ci biir jaamu yàlla yi nanu jaamu yàlla ci biir jaamu yàlla te jaamu yàlla ci biir jaamu yàlla mooy togg joxe ñi nga xam ne tey jii amuñu ndogu wala amuñu disponibilité bu nu toogee pour ndogu nga dajale leen ñoom ñëpp génnee sa alali bopp def ci muy teraanga ju bari di ay xéewal yu bari ñu di ko ndogoo ngir jëmmi yàlla kese te seen woo ci dara. li tax muy jëmmi yàlla kese te seen woo ci dara ndax jamono yee ci ginnaaw dama doon xirte murit dama jàpp ma def benn ojo fi ñuy teg teraanga yi wane ne ku am lu muy lii mooy jaamu yàlla ku am lu mu ci yéene di ko ci def ñëwal def ko ci bañuñu dara. ba mu ko déggee dafa ne ba mu ko seetaan dafa ne sëriñ bi bëggewu ko noonu maanaam lépp daf koo bëgg rek def ko te jëmi yàlla tax ci poosi boppam. ci poosi boppam. parce que am na koo xam ne bu déggee annonce bi ne dem leen indi ñëw leen jox ma ñu def ci yàlla day foog ne kon dara matul fii ci kër sëñ bi wala day foog ne kon propagande la wala day foog ne kon euh, wut dara la comme ni nit ñi baaxoo lu nu gis nga def ko rek ñu foog ne wut dara la te moom li muy def wutu ci dara lu dul jëmi yàlla kese ba mu waxee ne sëriñ bi de bëggeewu ko noonu laa delluwaat. ginnaaw ne sëriñ bi nee na bëggeewu ko noonu nañ ko tàmbalee woon nañ ko defee noona te nañ ko tàmbalee woon noonu mooy alalam ak sunu alal ñun. te daanaka alalam moo ci ëpp ndax ku yëkkati ay millions teg ci loxo taalibe yi ñu fàggu ginaar yu bari mu ngi fi fàggu ay xar yu bari fàggu ay nag yu bari teg fi bés bu ne ñi fi ñi fiy xéewloo amul xaaj ak seen amul kii lii la kii murit kii tiijaan kii tijaan déedéet jullit kese ñoo fiy xéewloo amul xale amul magi tamit. xale yi maa leen yore fii muy tuut tànk yi nga xam ne ñoo ne ci daara ji maa leen yore fii ber leen ngir seen dara bañ a manqué dañ fiy xéwlu fii nu mu leen bëggee ci lépp lu ñu xewlu moom la leen sëñ bi def sëñ bi daanaka ñooñu la gën a fonk sax mooy ndongal alxuraan yi ñooñu la gën a fonk ndax fonk gi mu fonk alxuraan li li li sama baay mi wax ne fulku bi ñuy jàng fii sëriñ bi buy waxtaan ci yoonu murit da ngay foog ne moom léppam seigne touba la buy wax ci diine itam da ngay fogné mom moom daanaka taalibe sax wul fenn ahlu diine rek nga koy tek te lolu moy nitu julit sëriñ bi jaamu yalla moko ñor ñun ñi di wax ak yow fi mu jaar ak ñun ci jaamu yalla suñ la ko doon wax da nga naan déedéet daanaka duma sax yegg na ak ñun ci ngir bëgg ñu fonk suñ borom yi bi lén rek nga koy défal mu neex ko muy nga fonk jaamu yalla amul leneen lokoy koy defal du laaj bula ligéy lo bula wuti lo lu mu am jox la boo tawatee mu faj la boo waree ngénte mu ngénteel la boo waree am soxna mu jox la soxna loo war ci say digganteek sa sa sa saayir yow moo ko yore kon li sa digganteeg suñu borom rek moom la moom lay xëccoog yow du la ci lebal dara du la ci may dara sëriñ bi su fajaree mooy yeewul boppam quatre heures et ku nekk ci kër gi di nga jóg nee naa leen kër gi du noflukaay fii amul noflaay parce que jaamu yàlla moo fi am bu wér. man mii man su ma demee nit ba nit xool ma am ak xemmem tuuti ci man dama ko sama benn xarit boo xam ne yàlla dafa dogal mu bëgg ma lool ma ne ko am nay jamono de soo ma gisoon doo ma bëgg ndax damaa génnoon société bi man te da cee bari moroom gis nga waxambaane yi ne fi yëpp di def seeni alal ci ci fii Nasru ñëpp a génnoon société bi génn société bi mooy ngay def loo xam ne àndoolul ak lu société bi bëgg te ci loolu laa nekkoon man samay morom nekk fi te lu bari xam nañ ko ci sëriñ bi moo nu delloo si waat ci société bi tegaat ñu ban doon ay julit piir mu wëlbatiku def ñu ay murit piir saadix wëlbatiku def ñu ay bay faal piir ku gis sëñ Assane bëgg baay faalam baay faal bu désordonné wul moo am fii fii boo fi doon wër suba ba ngoon jot doo fekk mego waxuma laa ku ko fiy jëfandikoo bañ na ko ba biti gi sax dañ ciy adapté wu ba duñ ko fi jaay ngir bëgg diine te loolu moo nekk rôlu sëñ Assane Kane defar nit moom la ko yàlla féetalee ñun ñëpp moo ñu defar fii ku fi nekkoon fii ku fi nekk ci kër gi rek ñëwee woo fi ak baax dangaa dem ba say waa kër gedd la ba ci entourage bi nga xam ne sax ñoo sës ci sëñ bi am na ci ñoo xam ne seen waa jur dañ leen a geddoon sëriñ bi récupéré leen di def ci ñoom xoola man bi may ñëw ci sëñ bi maa ngi am 35 ans te koñ ba ma dëkk ca Medina Fall damay wax nii de média la ñëpp a ngi koy dégg Medina Fall laa dëkk du ma fi étranger koñ ba ma dëkk ca Medina Fall dañ ma doon daw sëriñ bi récupéreel ma boppam. léegi man bi may ñëw fii mu wër ma ne système yi yi yi ñuy doyewaar yëpp mu ngeen man su ma defoon fii am ndëngte kuy am problème du sëñ bi samay parent duñ am problème de mais mu jaayanteeg loolu magum jëm ub làmb ñëw sa kër jekki rek ñu damaa wut si yàlla. Jebel Nala la sama bop nga ak jëm yalla serigne bi risque lay def te jëm yalla tax di di jog ak yow di ak yow di ak yow ci saayir di ak yow ci batine ba nga teggu ci ni serigne Touba bëgge kon Senegal, yëpp amel ñukkal serigne Touba serigne Assane kan ndax jërëjëf yi serigne Assane kan ji makoy wax ni lu wër la ci sama xol yag gi wah, wax mu yag fi su fi yagge ñun suñu njariñ la. 92 rek la man 2000 dong laa dugg ci sëñ bi te 92 kenn ñemewu ma woon bu ma masaan a dakaar Dakar ñëw am na ñoo dañ la naan bul jaar bërëb boobu diw ñëw na ci gox bi ma dëkk rusuma ko wax c'est parce que daf ma dimbali te noonu la dimbalee ñu bari ak i ay jigéen kon su bàyyee léppam ñun dañuy ñeewante sëñ bi sax ci mission bi muy doxee ci koor gi xoola fi mu bu wàccee nii mu ngi ndogu dix minutes mu ñëwaat ci naafila yi ba minuit su minuit jotee mu naafila bi jeex mu yéegaat ci kaw bu xéwlee mu ngi ak waa bitim réew ci seeni naafila ak ci seeni laaji diine ba presque fajar bu fajaree mu nekk ci gan yi sàkku aajo borom tawati ba cinq bu cinq heures mu wàcc ci fulk bi ba ndogu jot mu yéegaat loolu loolu ndimbalu yàlla de ak bëgg diine de yalla nako sun borom yàggal waaw kon nak euh, ñu sant ñëpp di gërëm euh, ñi nga xamantene ni ñom lañu fekk ci won ci nasru ken di sunu bay bi nga xamantene ni ken la ci serigne Assane kan bëgg ko lool nek ci gannaaw waaw bëgg xasaayit lool momit mën ko lool sha allah ci la ko serigne bi bëgge jappé ko ci insha allah waye it and ak sunu serigne sunu xarit mam bay Diouf yalla na fi yàgg lool te and ak wër xam ñu bu baax nak ci mom lañuy and ak paju cosaan ak Allah.